ni nga porté le combat euh, Ousmane Sonko euh, mosuñ la gis nga sore noonu et moi je parle je suis témoin euh, ci combat xalifa Sall dafa mel ni dafa am un pacte bu la lié avec Ousmane Sonko. est-ce que mën nga comprendre aussi ñi nga xam ne euh, dañoo choqué wu quand quand Abba Mbaye a fait ses révélations en disant. euh, que PASTEF ñoom ñoo la dégagé une enveloppe de un million cinq cent euh, sur les frais mensuels du groupe parlementaire euh, te te yow ñoom mënoon nañu ko dénoncer euh, dénoncé wul est-ce que mën nga comprendre li tax nit ñi choqué parce que nit ñi dañoo foogoon ne vous avez le droit de porter un combat vous avez le droit euh, de de démontrer d'un nu mu tudd une aspiration à au respect des des des atteintes mais est-ce que tamit nit ñi les gens ne se sont pas dit en kii dañ ko doon fay. moo tax mu mu porte noonu sa sa sa parti la bi may porté combat Khalifa Sall dañ ma doon fay. non mais ni nga porté non combat Khalifa Sall Khalifa Sall Khalifa Sall mais man défendre. mais c'est son damay ñëw li nga wax dafa am solo. président Khalifa Sall défendre naa ko ci plateau ba nit bëgg a xeexat man ci plateau dama laaj Chérif Dia ci plateau bi. Karim Wade dama ko défendre défendre défendre defendre fu ma toog même sa plateau yow damay dama mus a toog même man dama daan toog di wax ne rien n'empêche à Khalifa Sall et Karim Wade d'être candidat waa AZ Actu du ma ko fàtte mukk ma léegi ñoo ñëw sama kër bi ñu laalee article L57 laa bàyyee waa wax loolu ne attention yokk nañ lee pièces du dossier de candidature ce n'est plus huit c'est neuf man nga defee nii man homme politique Sénégal fii demal nga laaj ma glorifié wu et je pense que am na loo ci xam dana yëkkati xaalis di ma ko jox wala parti politique dana yëkkati xaalis di ma ko jox boo amee ku ko mus a def parti politique bu ko mus a def na ñëw. ce n'est da xam nga lu ma lay wax wante nag soo nee ñan ñoo ameel xaalis Ngouda Mboup ñu bëri mun nañ yëkkati seen loxo benn ñaar moi je suis consultant je suis enseignant je suis dans un cabinet. donc dama la bëgg wax ni la wax boobu noonu c'est pas vrai. ah bon ah vous bon. n'avez jamais perçu un million cinq cent. non euh, du groupe parlementaire de Yewwi pour des consultations juridiques. non dama ni la man je suis affilié à un cabinet mais dama ne la wax jooju wérul man personnellement jotuma gisuma million cinq cent li li may wax nag ci wax boobu noonu parce que la citation a été faite le vingt cinq aut et puis ça bouge pas. xam nga nag man. li ma lay wax may bàyyi justice mu def liggéeyam du ma ci wax du ma ci ŋàng ci laay yem ba ma ko waxee sénégalais yi di dëgg man du ma waxantu dama bëgg ñu xam ne man je suis un homme d'honneur parce que c'est ça ma vie parce que man mon père est un homme d'honneur ma mère est un homme d'honneur ma famille donc voilà lool laa gëm et le Sénégal aussi les Sénégalais son des hommes d'honneur soo ma waxalee dara lu dul dëgg su ma ko waxee sénégalais yi ne leen danaa dem ca mbaxane bu mu doonee nu ma munti def ak lu ñu ma mun a wax danaa ko dem la citation a été faite depuis cinq 25 août dootuma ci waxati. justice laay bàyyi mu tranché il a été interpellé. non man loolu du ma ci wax. moom en tout cas c'est sa responsabilité. ci yoon lañ koy régler waxoon naa ni sénégalais yi dinaa def citation def naa ko la citation a été faite le 25 août. waaw mais Bouba euh, si vous acceptez d'en parler c'est utile que nga. wax lépp nga dem jusqu'au bout <laughs> da nga ne da nga à un cabinet ouais. donc ce cabinet ne vous appartient pas vous y avec d'autres personne ou c'est votre cabinet non man awma cabinet man rek may mun a dama nekk ci cabinet avec d'autres personnes benn parce que man bi ma daan def consultance d'habitude individuellement laa ko doon def par la suite donc voilà on a été dans un cabinet un cabinet qui travaille n'est-ce pas et puis li may def man man dama dama man nous nous considérons comme des médecins. mais mais ce n'est pas un li may wax nii dama bëgg sax nga déglu. nous nous considérons comme des médecins de l'État c'est le professeur Aïvo qui le dit ma koy nuyu il est en prison opposant au Bénin l'un des plus grands constitutionnalistes aussi africain moom tamit dañ ko jaay doole alors man. man dama ne la inspiration bi maa ngi ko jëlee ci professeur El Hadj ak d'autres professeurs parce que le juriste quand même dafa am lu ñu koy soxla yow xam nga ci dara man tout le monde me consulte dans ce pays moo tax je me définis comme un médecin d'ailleurs je discute tellement avec les médecins parce que quand le médecin soigne le patient xamul fu mu jógee da koy metti lay seet mu jëm ko xool trouver solution pour mën ko faj loolu moo tax mes connaissances sont à la disposition de tout le monde dans ce pays maintenant Ousmane Sonko am na loo wax ci moom te loolu nit ñi laaj nañ ma ko et waaw parce que Ousmane Sonko man. non non balaa balaa ci Ousmane. xam nga man soo ma soo ma a non bul bul bul <laughs> xam nga est-ce que waroo am. c'est-à-dire non non parce que da laaj que bi ngay def laaj bi. foofu nga commencé non que laaj bi da nga wax waa Pastef ñoom ñoo may jox. xam nga ñu bëri amalgame bi yow da dañu ne Pastef dañ may jox. xaalis mu ne dañ koy jox xaalis et cetera. dafa ñoo décidé octroyer la euh, un cachet de 1 million 500. mani la du dëgg pour les consultances ñoom mënoon nañ ci opposé. waaw mani la mani la wax yooyu du dëgg. wérul non seulement le montant wérul. c'est le montant wérul non man du ma ci wax. c'est devant la justice le montant wérul et li mu wax c'est pas vrai. ce n'est pas le montant wérul. waaw même si c'est 1 million ou 500 000. l'essentiel vous n'avez jamais perçu des honoraires pour des consultations juridiques pour le compte de la man je suis dans un cabinet. qui travaille soo bëggee xam li cabinet bi di liggéey demal nga laaj cabinet bi mais li ma mun a wax mooy dans cette affaire bi mu jógee ñu wax ma ko ma gis ko dans la presse wax ci bari man damaa ne sénégalais kat man centime bu ma am elle est d'origine licite xam nga man liggéey naa fii Sénégal fii def loo xamante ni tey par exemple mënoon naa ko tarif mënoon naa ko mënoon naa ko mënoon naa ko fayeeku à 173 millions xam nga ñaata laa ko fayeeku 3 million mais nguur non non non non may mun a danga may bàyyi may wax parce que sénégalais laay wax ba ma ko waxee ñu jox ma ci un million deseel ma 2 millions ñi ma deseel 2 millions mënuñu ma fay pour ñu mun ma fay il a fallu que ñu ni Ousmane Sonko mu wax ak man loolu dinaa ko révéler moom moo wax man. mun naa ko wax. allez-y. mun naa wax ne tey soo jëloon tey tey ñi may dégg soo jëlee lu mel ne la liste de Dakar ba mu amee problème. yow yaa ko sauvé. du ma wax man bokk naa ci ndax nit da ngay ëmbal plus de deux cent mille voix mosuma koo yuuxu tey laa la koy doog a wax. ci lañ dafa fayoon trois millions jox la un million dese la. non ba ma ñëw di leen wax ni leen lii ba ma ñëwee te pourtant. dama koo def parce que par patriotisme laa ko defee xam nga man je ne cherche de l'argent loolu la nit ñi war a xam parce que bu doon loolu la nee naa la su ma ko indexé woon rek ci fenn mën na am lu bari loo xam ne nee naa la mënoon nañ ci laaj 173 millions ma wax la man defal naa consultance ñoo xam ne ci nguur gi lañ nekk man defal naa consultance ñoo xam ne dans la presse lañ nekk man defal naa ñoo xam ni consultance ñoo xam ni France lañ ne man defal naa consultance ñoo xamante ni c'est tous les jeunes des partis politiques de tout de tous les partis politiques du Sénégal ba ñu dem ba ba ñu jox leen prix en Côte d'Ivoire parce que c'est mon métier maintenant ku bëgg nag man jeter du discrédit man sur mon honneur du ma ko nangu ak ku mu mënti doon. et dans cette affaire xam na lan moo tax qu'est-ce qui a été malheureux. mooy le fait de dire que Ngouda Mboup donc voilà dañ koy jox donc telle chose et xam nga man yow xam nga sama courage <laughs> man je marche à visage découvert dans ce pays mais man dama ne la man je suis un consultant qui travaille. mais parce que xam nga lan moo tax nga lan et le reste maintenant. c'est à la justice d'en parler. xam nga yow xam nga un ministre de la République dañ koy tere moo am entreprise dañuy tere yenn conflit d'intérêt par exemple ma jël kan. xam euh, moo nekk euh, voilà inspecteur des impôts et domaines ah. bu nekk dans le gouvernement mënoon nañu ko incriminer parce que dafa nekk ministre dam defal consultance benn cabinet euh, ci wàllu fiscalité wala ci wàllu foncier loolu mun nañ ko dénoncer mm. mais nguuda peut-être que les gens vous demandent juste un devoir de transparence yow da ngay jàngale sa xam-xam màcc ci wàllu droit pour produire yenn argumentaire yi nga xam ne wala moom la ñuy yóbbu au niveau de la constitution <laughs> de la de, du conseil constitutionnel de la cour suprême da ngay toog tu tu tu tu mets un temps de travail oui. tu réfléchis tu fais de la recherche peut-être même que tu vas acheter du bouquin peut-être peut-être mais am nga droit nga ne pour faire ce travail là temps la may c'est un intellectuel voilà qui doit être rémunéré maintenant peut-être que li li nga manqué c'est un c'est un devoir de transparence Euh, non, vise, non parce que ñu bari dañoo jàppoon ne euh, voilà vous êtes un intellectuel qui soutient une cause progressiste qui soutient euh, une opposition vous êtes dans un combat noble et quand Abba Mbaye fait cette révélation là les gens sont en droit d'être mais, choqués mais mais Abba Mbaye n'a pas fait de révélation Comment il ça? a dit des choses qui sont inexactes qui sont fausses xam nga lan la yow da nga ko wax may mu ne loolu war nañ ci mun a bañ a attardé dama la moi je suis un consultant fu ne la ñu may woowee di ma wax consultant. mais loolu nga war a nangu non dama lay wax. am nga droit nga def non cest à li ma lay wax mooy dañoo commencé ma ne la am na loo xam ne soo koy def il faut nga am ay références ay référents parce que njàng loolu la pour nga xam ay nit fu ñu jaar dama ne la le professeur El Hadj Mbodj ñaata constitution la bind fii en Afrique. Ismaïla faisait des consultations damay ñëw rek man El Hadj laa wax le professeur El Hadj Mbodj laa tudd ma wax la Guy Carcassonne bu muy nekk ak Michel Rocard il accompagnait il accompagnait Michel Rocard et l'opposition c'est lui qui faisait les recours dem na ba sax ay étudiants am ñu ne day def thèse ne leen pourquoi du ñu def sur les saisissants gis nga bi mu deewee en 2013 gauche ak droite ñëpp dañ ko rendre hommage xam nga nit ñi ñoo xamul nee naa man je suis un consultant. son entrain n'était pas rémunéré. <laughs> Guy Carcassonne travaille même avec des cabinets. Non, avec non, des cabinets, avec des États, il a opéré au Sénégal euh, dans le débat mais, de 2012 aux côtés de Idrissa Seck. Maïmouna li nga bëgg wax loo mooy est-ce que dama ne la man su may travailler en consultant damay liggéey ci sama ñàkk lañ may fay. mais c'est ce qui est normal. bien le reste parce que man maa def option boobu xam nga man soo ma ñëwee tey man boo ma fekkee université man université rek laay jàngale. jàngale wu ma dans le privé parce que aw ma temps maa opté ne su ma paree université consultance laay def parce que am na lu ma namm ci réew mi am na lu ma bëgg am na taxawaay bu ma bëgg def am na foo xam ni fa laay jëlee sama inspiration ma jéem ci nag taxaw en citoyen modèle xam nga samay relation ak xalifa Ababacar Sall ba may défendre xalifa Ababacar Sall xamuma ko est-ce que xam nga samay relation ak yenn député yu taxawul moo tax dooma mus a dégg ma wax leen lu ñaaw doo mus a dégg ma attaqué leen parce que noonu la demee les gens du pouvoir mais beaucoup d'entre eux m'estiment ma leen koy delloo ñu ci bëri noonu laa taxawee Sénégal moo tax ma ne la mes connaissances sont à la disposition de tous les Sénégalais maintenant man quand je travaille c'est aussi donc damay wax ne man nii laay travailler maintenant est-ce que dama bokk ci cabinet wala dara et cetera loolu sama droit la beneen bi ci topp nag mooy nit ku ma waxal lu dul dëgg. mais c'est ce qu'il faut dire tout simplement. non non non damay damay damay non c'est pas vrai j'appartiens à un cabinet vous avez le droit de faire xam nga lu tax xam nga lu tax c'est pas vrai. la ko wax sànq dama ne la li ñu wax nii le montant ni mu ko waxee demewul noonu donc c'est pas vrai c'est de la diffamation te comme loolu am na man képp ku ma diffamé. damay dem jusqu'au bout lu ma am jël mais j'ai cherché à comprendre parce que yow quand même vous êtes un allié un allié de de de, de taille pour euh, pour pour l'opposition <laughs> parce que oui mais c'est la wax ko oui vous êtes waaw foofu dama la bëgg wax ne la je ne un allié je ne pas un allié je ne suis pas un soo waxee loolu day mel ni non je ne suis pas un allié parce que bu fekkoon tey par exemple waa PDS dañoo ñëw consulter ma damay day ñuy defal consultance su ma ko ñeneen def bu ñu état du Sénégal su ma bëggoon liggéey loo temps damay ñëw ma liggéey ko di ma ko war a liggéey lenn rek laay teg comme comme comme gis nga man lenn rek laay teg nit ñi dañ la koy wax soo waxee nguur danaan la lii su fekkee c'est pas conforme à mes valeurs ak li ñu ma yare wala li ma def du ma ko def. mais quand je dis allié c'est-à-dire vous volez souvent. non aw ma allié aw ma allié. aw ma non euh, pas allié. non non non euh, mais il faut enlever le mot aw ma allié. waaw boo bëggee en tout cas vous êtes un soutien juridique de taille. non je ne suis pas un <laughs> soutien. parce que à chaque fois. qu'une question de droit se pose. voilà da ngay joxe yoon da ngay joxe euh, des des des arguments da ngay joxe. des de des solutions mais bu fekkee. et daf leen di daf leen di servir. xaaral bu fekkee ni sama xam-xam mën na leen a servir no no non dama daal fekkee sama xam-xam mën na leen a servir ñu mën ko jël damay wax lu Joseph Stiglitz waxoon. Joseph Stiglitz la même chose lañ ko wax ne ko say idée tu es le théoricien de la mondialisation say idée dafay servir les les altermondialistes mu ni leen j'en suis pas responsable su leen mënee aider ba les altermondialistes mun a taxaw. mais gàcce nga la ama mais mais mais xam nga je pense que dañoo da arriver arrivé euh, ci benn confusion c'est-à-dire ñoom reconnaître nañu sa xarañ ba ñu accepter travailler avec toi euh, directement ou indirectement avec le le le le, le cabinet ñoom ñu bokk la man financière euh, bi nga xam ne moom mooy celle du groupe du groupe parlementaire et puis mu am un débat bu posé wu. euh, concernant la situation de de de Taxawu Dakar euh, mu am ay ay ay kii yoo ci def xëy na loolu moo suscité. non le courroux de Abba Mbaye ñu jàpp ne ah ñu ñoom ñu jàpp ne. xam nga euh, xam nga vous prenez fait et cause pour loolu loolu moom au détriment de Taxawu. non mënul nekk xam nga lu tax mënul nekk. Ah. parce que Pastef ak taxaw bu ñu jotee sama yoon nekku ci mënuma cee dugg. parce que je ne fais pas de la politique. mais vous êtes un dégât collatéral man je non je ne suis pas un dégât collatéral. te mënuma cee dugg Pastef ak taxawu suñu jotee woon suñu jotee man mënuma cee dugg tuuti naa sax pour dugg ci parce que xaarewuma sama bopp foofu nee naa la Pastef comme taxaw ay alliés lañu nekkoon yeewi askan bu ñu jotee seen biir man xaw ma lu ñu jotee bu ñu jotewul seen biir xaw ma lu ñu jotewul li ma xam mooy nee naa la man je suis un consultant et man je n'ai pas de frontière lii laa la mën a wax dama lay wax beneen gis nga. mais dans le dama lay dama dama lay wax beneen. no bàyyi la réhabilitation de Khalifa Sall vous avez eu des prises de position yoo xam ne. comme par exemple comme ban comme ban. non euh, c'est pas un débat non non non may mën a c'est pas le débat de de mais lan mais man du coup du du taxaw. non mais li ma wax ci ci dialogue bi ngay wax. mais dialogue bi dama taxaw ne man bi ñu njëkk a def dialogue bale passé ba Covid bi arrêté ko dama bind papier ñu ma def dialogue politique au Sénégal succès et insuccès l'identité politique sénégalaise n'est-ce pas repose sur une démocratie de consensus xam nga bu ma taxawee ni man d'accord ma ci forme dialogue bi mais am naa ci droit xam nga lu tax d'accorduma ci parce que bi mu commencé laa ni dialogue bi du doon un dialogue inclusif waaye ba ma taxawee ci loolu damaa mës a taxaw ne xalifa Ababacar Sall ak Karim Wade leen jaay doole te xoolal ils avaient perdu des droits qu'ils n'auraient dû jamais perdre te Khalifa Ababacar Sall ak Karim Wade dañoo war a doon candidat suñu leen delloo seen àq ak yelleef du loo xam ne dañ leen ko may parce que dañ leen tooñoon dañ leen a jaay doole gis nga loolu noonu duma ci mus a dellu ginnaaw may mën du ma mësaw xam nga wax li ma wax di ci dellu ginnaaw man nee naa la je suis un homme d'honneur maintenant mes prises de position quant à maintenant un dialogue et autres là mais Pastef ak ñeneen nee nañ ñu d'accorduñ ci dialogue bi ni mel man position boobu laa amoon man tamit ni cette forme de dialogue d'accordu si mais man waxuma ni dialogue du am de man dama ne su dialogue day am dafa war a doon un dialogue inclusif parce que su fekkee ñii gedd nañ ñi gedd nañ et cetera le président de la république waroon na tàllaloot loxoom may mun a fii la ñu toog ak yow le 12 septembre passé sa kanam laa ko waxee manee ne la man maa toog ne la suñu deful ndànk assemblée nationale day am xeex oui ou non mu am xeex ma ne la président de la république na tàllal loxoom opposition ñu pare ma ne la man de président de la république li ma wax gisuma ko parce que moo opposition sax bëgg koo wax dans son discours bi muy taxaw naan je prendrai toutes mes responsabilités boobu ba tey sax loolu lay wax waaw man man qui suis ba Pastef ak taxaw su ñu amee problème man ma ci dugg du ma ci mos a dugg parce que dama am am na ay xarit. mais mais mais y a eu des dissensions à à propos. Euh, du dialogue à propos de la modification euh, du code électoral. te prise de position yi nga ci yi ngi ciy def. ban prise de position waa waa taxawu jàpp nañ ne ces prises de position sont plus proches des positions. Euh, de Pastef non loolu benn waa taxawu. bu wax boobu la Abba wax. non amul mu ne d'ailleurs. non ah. en fait Abba. amul benn amul benn son objectif n'était même pas de vous incriminer. dafa bëggoon joxe rek benn exemple. ñoom sur leur sur leur état d'esprit. mu ne d'ailleurs euh, ku mel ni nguuru boobu mun nañ jàpp ne ci ñoom euh, ñoom la gën a jege euh, munoon nañu bañ mais pourtant quand on nous a demandé de lui octroyer une enveloppe de un million cinq cent pour ses consultances nous on a accepté alors qu'on pouvait xam nga xam nga xam nga am na loo xam ni man xam naa ko ci parti politique yi. am na lu ma jot am ci expérience même élection présidentielle man 2019 am na candidat yoo xamante ni man maa nekkoon seen conseiller juridique parce que ñoom ñooy ñëw vers man. mais c'est normal nguur non non bàyyil ma ñëw rek dama lay wax rek est-ce que dafa tax ñooñu suñu amee problème ak ñeneen wala sax am nguur gi man dama ciy dugg sama yoon nekku ci kenn du ma gis ma dugg sur des querelles politiques ma wax la benn affaire man du ma musuma fekkee man Pastef gii nii nii nii seen i réunion lu ko fekkee parce que aw ma fa place haute autorité lay gérer je suis un casque bleu en politique maanaam arbitrage démocratique moom fa indi par contre man sama expertise nag ku ko soxla man dama naa ne la nii laay fonctionner gis nga Ousmane Sonko bi may nommé ñoom ñu wax ma ko nee naa la topp nañ ma un an et demi ma ne à une seule condition su ma décidé da ngeen siy tënku ba pare je ma me mêle pas de la direction de votre parti ñu ne ma nangul nañ la ko. wóolu nañ la c'est la même chose que j'ai fait Pastef taxaw ak keneen ak keneen suñu jotee man du ma du ma du ma sax xool lan lañ jotee suñu ma liggéeyloo benn affaire nee naa la su fekkoon ay milliards lañ may fay bu fekkee ni ce n'est pas conforme à mes ak ni ñu ma mooñee ni ñu ma yaree du ma